الله تعالى وبركاته نو ندي فاي ني خليفه الشيخ احمد تيجان الى جبرائيل من جهه وي جي بروم يم كاد نغا ييكتي كاد يما ييكتي دو باري ndax hal quran buy tag nit bu hege ci innahu kana min salihin wax joju jeexal nako da fay jël jenen wax kay te kii bépp bunt boo dagg soo si toppee bokk ci ña ña nekk ci njoloxtanal loola su dee tabe mu nga ca njoloxtanal ñu tabee ña hmm. su dee lewet mu nga ca njoloxtanal ña lewet ña su dee xam kersa ci mbooleem mbindeef yi yàlla yi soo demee da nga fekk mu nga ca njoloxtan loola su fekkee ne mën a ñëweti jaam yàlla yi man leen a dimbalee mu nga ci ñoloxtu loolu suufeel boppam ba mel ni du dara fekk na mu nga fees dell soo ko seetee ca bunt boobu da nga fekk mu nga ci njoloxtu ne bon daal bépp bunta baax boo ci demee rek danga fekk mu nekk ca mi na faalihin bon foog naa ne loolu doy na mhm. waaye wax na ne bi nga xamee ne baa ngi leen di tàggu moom ak alaaji abdullahi rahimahullahu mhm. ak alaaji ahmad rahimahumullahu ak moom rahimahumullahu ba mu leen di tàggu ci jëppal ba wax ak ñoom lam wax ak ñoom ba pare dañ joge bay génn def na ko xee mu geesoo mu ne ko kaay yoo laa wax hmm. ba mu dikkee mu ne ko sa ñaari mag ñii dimbale leen yërëm leen hmm. loolu jëf na ko jëfin woo xam ne xemut ci dimbale alaaji Abdoulaye dimbale alaaji Ahmadu waaye képp koo xam ne jaar na ci yoon woo xam ne diggante moom magam yooyu ba képp koo xam ne xam nga mag war nga mën a jaar ci yoon woo bon dimbale na la dimbale na magam ñi dimbale na ñeneen pour ñu dimbale seen mag ñi mm-hmm. dimbale na tofool baayam ki nga xam ne moo topp ci alaaji ba alaaji Abdoulaye di alaaji Ahmadou mm-hmm. ci góor dimbale na ko bon képp koo xam ne xam nga tofoo itam war nga koo mën a dimbale mm-hmm. bon daal ñaari magam yooyu dimbale leen dimbal loo xam ne bàyyi na na ko soo ko defee doo ko rëccu dégg naa ñu wax ko yu bëree bëree bëri mm. dégg naa Baye Marie waxaat na ko mm. tey ci fajar ci fayda bii kon sëriñ la boo xam ne tabe kenn gisu ci moromam waaye nag yàlla dimbale na ko mu dund dund gu gudd boo xam ne mali un bi xayraat waaw xamu dara lu yàqu ci dundam mm-hmm. ñun de xamuñ ko gisuñ ko dégguñ loo xam ne moom lu mu tuuti tuuti jëng ci jëlee ab yar ci moom boo xam ne nga gisee ne man de su ma doon def du ma defee nii wala duma doon waxee nii ngir lam wax gën a rafet la nga xam ne moom nga waroon a wax ak moom nga doon def kooku mooy jikkoom nit ku baax la nit ku sell la mm-hmm. ku liggéeyal lislaam la ku liggéeyal tariqatu tijaan la ku liggéeyal faydatu Cheikh Ibrahima la waaye li mu wax daal mooy li nekk ci kër bii tey ci ñoo xam ne kenn sa bàyyi ne wut kenn sa yaay newu fi waaye dangaa ñëw rek pour wut si mbaax lim ci dugal ci këram gii ñuy xañ di reer di ndékki ñooñu day bëri nañ bëri goo xam ne ñu ngi ñaan yana leen yàlla toog loxoom ndimbal teg loxoom ndimbal ñi nga xam ne ñoo koy wuutu ba ñooñu duñ jooy ñun loolu la ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gii ak ci yeneen kër mbooleem kër yum tabax rek da ngay fekk ne ay Hausa hmm. ak yeneen i nation bon ñooñu fi mu nekk ne moom la yàlla defoon muy loxoob yàlla ci ñoom loolu kooka dem na waaye loxoob yàlla bi tàlli moom ñu ngi ñaan yàlla yana tàlli jaar ci képp ku toog rek yana ndimbalal yàlla tàlli ci yow da nga mën a def fukk su fekkoon fu muy def benn nga man faa def fukk ñu ngi ñaan